sànq mooy moom nee na dafa bëgg a nekk président te respecté wul justice su Sénégal respecté wul juge yi nga xam ni dañu leen Sénégal moo jël alalam fayal leen ñu jàng fayal leen ñu former leen jox leen moyen pour ñu liggéey moom nee na ñooñu maanaam zéro lañu par rapport ak moom sa majesté moom benn benn damitu malaaka boo xam ni amul juge yu Sénégal bu ko mën a juger loolu da di won nit ki maladie bi mu yow loolu benn jàngoowu xel la moom xamul mooy kan en fait léegi loolu loolu dama koy ne monsieur Sonko yow Ousmane Sonko yow c'est-à-dire yow dangaa xamul sa bopp may tontul juge <laughs> cest à man damay taay yenn saa damay dem ba damay tàyyi sax parce que yow yow enam ba nga fa duggee ndaaree nga génn enam maanaam li nga jàng yow ndaare nga génn yaa mujj yaa yaa yaa yaa yaa nekk ndaare nga génn ndaare ci li nga dekk yow mënoo ci nga nga génn dem amul buñ fuñ la mës a tabb ba nga liggéey at ya nga liggéey yëpp mësuñu la maanaam avancé la la maanaam yow nekkal directeur ndax dangaa xarañ mësuta am mësuñu la tabb ndax naw la ci sa njàmbaarte ci sa domaine nga ne léegi yow mënoo fa nga jàng def fa xaw ma presque dix ans d'étude nga nul am fa nekk fa nulaal nga bëgg mbiru justice nag léegi yow yaay wax experts yi lan la ñuy def ak nan la ñuy doxalee c'est pas une c'est pas c'est pas une jaaxalu leen nañu yi xel c'est le monsieur il est dans une c'est-à-dire une c'est-à-dire mënatul xam moom xamatul mooy kan loolu jàngoo xel la mais yow boo fekkee ni la nga def dix ans jàng ko munoo fa xarañ master la nga xam ne ñeneen dañ fa jàng dix ans ñëpp xàmmee leen ràññee leen ñu am fa ay avancement ba ñu am ñu nommé ko nekk ne ko yow yaay procureur kooku dañ koo tabb ndax ràññee ko ci xarañteem ak njàmbaarteem yow Ousmane Sonko fa nga jotoon a nekk sax yàgg fa mosuñu laa tabb amoo fa benn ndombal tànk donc yow tuuti nga pour di wax Sénégal que amuñu juge bu la mën a juger parce que doo ge doo leneen lu dul benn sénégalais simple d'accord benn sénégalais simple bu bàyyi ay jabaram këram di taxawaaru di lambar lambari ba dem ci ab jacuzzi sotti fa yalwaan ba ko militant ya dajale loolu yëpp mu ne nag loolu du taxaw lijjanti ko ak ay militant am da koy xëpp président de la république Ousmane Sonko ñun dofuñu diine jàpp juge ba lay juger xoolal ka fa ka mujjee génn enam ka mujjee génn ci ci ci seen kuréel yi ñu leen di former sax buñ ko tegee bu juger la man sax buñ ma tegee ma juger la te da ngay taxaw ñu juger la par force